asalaamaaleykum mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki ñuy topp ci biiram ci bitim réew ñu ngi leen nuyu baax te di leen ziar di leen jaajëfal baax a baax di leen nuyoo fi ci Mbàkke eh, ci pencum Serigne Modou Aminta Fall waaye di leen nuyoo itam eh, fii ci eh, mboolem sëti Serigne Modou Aminta yi nga xam ne tey ñoo fi daje xam ngeen ne ziar bi nga xam dañ ko baaxoo amal at mu jot ci seen kilifa di Serigne Falilou Fall mi nga xam tey mooy jëriñ sëñ Modou Aminta Fall ñu ànd ak mboolem njaboot gi yëpp itam waaye ànd ak jotaay bi sëriñ maam Cheikh Mbacke mi moom sëriñ Abo moom Cheikh Mouhamadal Fadal eh, ñëw nag bokk ak ñoom liggéey bi ndax bokk ci njaboot gi ak mboolem kilifa yi fi teew yëpp itam di njabootu sëñ Modou Aminta Fall bu baax a baax sëriñ Falilou Fall mu yàlla dogal tey mu toog ci boppu njabooti sëriñ Moussa Fall Mbar ak mboolem njaboot gi yëpp itam xam naa rek dañoo toog ak kenn ci eh, jëwriñ yi muy sëñ Xabaan Ndiaye moom itam eh, bokk ci liggéey bi mu deeral ñu rek liggéey bi naka la demee ak yi nga xam ni tey waaj waajal nañ ko ngir ziyaare ji sang bu tedd boobu di Serigne Fallilou Fall waaye tamit eh, joxe seen eh, liggéey eh, ci liggéey bu tedd bi nga xam ne ko doon liggéey jëmale ko rek ci liggéeyu bu bi nga xam ne xam ngeen ne maam Cheikh Ibrahima Fall Baabul Muridiina moo ko moom la ko sëñ Touba Seexul Xadim santoon duñu deñ saa su ne di nettale taarix bi ku di Baye Fall moom li la war mooy joxe ndogu ak joxe kumte waajal li nga xamante ne bi itam mooy weeru koor Cheikh Ibrahima loolu la ko sëñ Touba santoon maam Cheikh nag daan ko tàmbali ci lim boo xamante ne bii ci taarix wax nañu fukki ndab ak ñaar tey jii mu dem ba àgg ci ay junni junniy ndab mu mel ne kon liggéey bi yokk na li Cheikh bi rek gëm mooy ku yokku yaa wàññi ku tedd ki Sëñ Tuubaa Cheikhul Xaddim joxoon ko ndigal damay séntu gan te bëggoon nga gàttandul ma ko te gungeel ma ko Cheikh Ibra Fall mi dégg Serigne Touba it xam ne Serigne bi weeru koor la koy wax wax suñu yaaram ne ku ma jox lu toll lépp tànk ma fàggul la ci loo xam dootul yàq te boo faatu mu dugal laaj na ñu tàmbalee woon ko maam Cheikh tàmbalee woon ko ci fukki ndab ak ñaar wax nañ ne mag ñi ne nañ su ko daan togg sax da daan waxtu wi jot tisbaar maanaam jàpp tàkkusaan da daan dem ba ci fi taali saxaar gi Cheikh Ibra Fall teg fa seesam toog fa wax nañ ne soxna laal la bokkoon ci njaboot ga daanaka wax na ko bàyyi saxaar si Cheikh na ko saxaaru ndog yi ku mu dugg ku nekk sans borom mën na la ci defal ak texe loolu nag di doye bi nga xam ne ndog yi toll na ko fii ñu toll tey moo tax njabootu bi Ibrahima amuñu jenn yitte jumay rek saa boo xamante ne bii noo ngi koy dëgmal ci waxtu wi. Eh, lu ñu am rek dañ koy waajal ngir ziare ko ki nga xamante ne bi mooy seen bunt ci yoon wi xam ngeen ne Cheikh a Fadal eh, liggéeyam bopp bépp bépp tey mi ngi ko ànd ak jëwriñ ni Cheikh Ibrahima Fall ji di Serigne Cheikh Jëmu ne ci wetam di ko jàppale ci liggéey bi muy jàmbaar joo xamante ne bi eh, moom wax dëgg la nga xam ne way juróom wa Cheikh Modou Falilou Fall sëñ Moromin te jàmbaar jooju nga xam ne kenn dootu ko fàtte liggéey na ko ci yoon yi tey wëlbati ko waan na ànd ak way juróom wii di Serigne Cheikh Jëmm di ko jàppale ci liggéey bu tedd boobu eh, ci liggéey Cheikh Ibrahima Fall bi nga xam ne Cheikh Ibrahima ko ko dénk te bàyyi ko fi te mag ñi waxoon ñu ba yàgg na Cheikh Ibrahima ne fii ma toog ko fi toog ba bis penc bu déglee def leen bu teree ba leen su laajee jox leen su wóoyte wuji leen Cheikh Ibrahima ne su xamul ma xamal ko su amul ma amal ko su mënu mo manal ko may fayta duma jël ma feñ na ci tay ki fi nek di seigne Cheikh Jëm waaye tey jii nag njabootu Cheikh Modou Falilou Fall gi di setti seigne mourou min tay dajalo ngir nak japp ci liggey bu tedd bobu nga xamne seen wayju bu baax wi lako seen mam baye te ñu jàppale ko ci tax ñu dajal seen addi ngir fasiyene dem siyaare seigne Falilou Fall xamna seigne sëñ ndjay kenn ci jëwriñ ni mom rek mo ñuy leral lan moy waccay yu ndaje mi tay bismillah billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñoo ngi sant yàlla bu baax julli si nabi alayhi salaatu wasalaam di sant sëriñ Tuuba di jaajëfal maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Baay muy dina di ñaanal baax Cheikh Muntaxa suñu borom yàggal ko fi loolu te wéral ko ak njaboot sëriñ Tuuba gépp di ñaan si Cheikh Jëmu Fall mi maam Cheikh Ibrahima Fall suñu borom doole koo yàggal lool doole ko wéral di ñaanal mbooloo njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall gépp di siyaare bu baax suñu buntu ci maam Cheikh Ibrahima ñun waa kër Cheikh Modou Fall ñëpp muy Serigne Fallou Fall moom Cheikh Modou Fallou Fall di jëwriñu ñu Cheikh Jëmb Fall man si Cheikh Jëmb ko xool ba mu yàgg mu fal ko jëwriñ ci fullaam ak faydaam ak pëseefam ak nangu gum nangu maam Cheikh Ibrahima Fall lam bel mu dina aw tànk waa jërëm rek di siyaar mboolem sëti Cheikh Mouhamadou Fallou Fall yëpp di jiite sëñ maam mii nga xam ne doom yi suñ ëppam suñ Fallou la waaye waajur mu jigéen suñ moom tey jur muy suñ kilifa sa jataay bi di siyaar bu baax sëñ Moustapha mu suñ Assane moom mi xam ne tey jii mboolem sut suñu moonte yi mooy seen kilifa di baax suñu jëwriñ nag ki ne moo waral ñu yëkkati kàddu di wax mbi sëriñ Cheikh Fall moom sëriñ Fallilu moom suñu moo demee Fall ñaa ko suñu Cheikh Jaabel ñaa ngi koy ziar baax a a baax di jaajëfal mboolem waa baax maam ñëpp baax maam nag mooy sëriñ Cheikh Mamadou Fallilu Fall yi li ko waral ak ñu teg suñu baax maam mooy nangul gu Cheikh Mamadou Fallilu Fall nanguloon maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Baal Mouridina foofu rek lañ ko teg kon ñu ngi ziare ñëpp lii nag li ko waral mooy ak bennoo rek mooy ñor li waral ñu sos lii muy daayira bii nga xam nañ koo sos saa su ne ñuy dajale ay addee di ko yor sëriñ bi te yàgg ko def lool xëy na ren la sëriñ Maamun njëkk ñëw waaye yàgg nañ koo def waaye lii suñu yittee leen rek la mooy booloo doon benn ak liggéeyal maam Cheikh te jaare ko suñ buntu loolu moo ñu ñor mel ne góor ak jigéen mag ak ndaw mboolem ko ne da ngaa bokk suñ moyente ak foo ci bokk rek ci daayira bi nga suñu yitteet leen dong la mooy liggéeyal maam Cheikh Ibra Fall loolu dong mooy suñu yite tey mooy suñu yite ëllëg ndax xam na ni Cheikh Modou Fallou Fall lépp lu mu am liggéeyal maam Cheikh Ibrahima Fall rek moo ko ko may te it nit moom looy teg sa bët tem neex la roy ko war na la kon roy Cheikh Modou Fallou Fall moo waral lii daaw nag lañ njëkk def nii ñu def nii dajaloo ñun ñëpp togg ay ñam daal dajale adde yët ko sëñ Fallou mu tolloon téeméeri junni ren jii nag dañ ko yokk def nañ téeméeri junni ak juróom fukk yët ko sëñ Fallou Fall moom Cheikh Modou Fallou Fall sàkku si ngërëmam rek nag moo ko lañ la ñuy def ndax xam na ne bu ñu amee ngërëmam am na ngërëmu Cheikh Mouhamadou Fallou Fall ndax fii ñu toog te jii moom moo fi Cheikh Mouhamadou Fallou yoroon di ko yët Cheikh Mouhamadou Fallou Fall bu bu teggee ku mu ko jox dañuy yaakaar ak seytaane la waaye bu di ko jox ko suñ suñ suñ Fallou nañu xam ne kii mu ko jox kat moo ko war a nangu loolu moo war a mu takkee suñu addee ñu ne nañ ko yët Cheikh Mouhamadou Fallou Fall mii fi nekkal suñ mën a jigéen ñi nag wax dëgg yàlla ñoo ngi ne ñoom it ay jàmbaar lañ lool suba tey ñoo nekk si waañ wi ña nga ne sol nañ seen i bolo ba dañuy xaar nga ñu ànd dem siyaar ji sëriñ bi ñii fi nekk ñëpp ngay gis lenn dong mooy seen yitte mooy am ngërëmal sëriñ bi mu leen ñor lenn dong mooy seen yitte bi am na it beneen def boom seen nii xam naa ni ñu bëri jotuñu ci sët Cheikh Modou Fall yi dajaloo nañ ah, bind ab kaamil seen nii sët si moom dafa rek ñoo ko bind ah, jox ko sëriñ bi ba sëriñ bi joxaal leen ci ndigal fii ñu ngi waajaat beneen ci ah, njiitul sëñ Modou sëñ Soambar ak sëñ Modou Soxna Oumy Diop ñooñu ñoo ñoo ko yor waaw loolu lépp jubluñ ci lenn lu may xencu rek liggéey maam Cheikh Ibrahima Fall waaw waaw saa su nekk bu ñu fi dajee dañ fi jàng alxuraan ñetti yi lañ fi jàng def ko addee Cheikh Mamadou Falilou Fall ak mboolem njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall nga nekk barsàq gépp ñu koy ñu ngi leen ciy ñaanal di ñaanal mboolem njaboot gi fi nekk ñëpp si borom du leen fee yàggal te du leen a dëgëral loolu mooy sababu ziar bi xam naa dina am sax leneen lu si ñëwaat ci kanam muy bu dul wàllu waxtaan ak yooyu xam naa kilifa yi dañ ko def ci kanam waaye dañuy waxoon rek ñu présenté ak wax li tax euh, daayira bi loolu rek moo moo moo waroon te ñu yëkkati fi ay kàddu. mu ne ko sëñ Mouhamadou waxee noonu rek li may bi moom noonu rek noonu rek li mooy fas yéene kat xencu nag loolu yi nga xam ne sunu maam jooju muy Cheikh Mamadou Fally Fall loolu la feeñalaatoon yoon yi ndax kenn ku ne xam ne yoon wi kat fekkoon na ko foo xamante ne xawoon naa ki maa ne loolu waaye fi mu moom ak fi mu ko teg yaakaar naa du neex weesu kon nag loolu yi ñun nag bu ñu tudd ko tudd kon ñun nag foofu lañ fas yéene rek fas yéene feeñee foofu ndax sët yi bari na lool ñi am ay sët bari na lool waaye lu ci ne nag dañ koy delluwaat ci la nga xam ni moo fondement loolee. Cheikh Mamadou Falilou Fall nag kenn ku ne xam na ni jàmbaar la woon joo xam ni kat li ko yoonu maa am yu jaraloon yaakaar naa bëriwul ñu ko jaraloon ba yaakaar naa jëf na jëf joo xam ne yaakaar du neex a fa wax ndax la tàmbalee ca Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacké ba yegg si sëñ saali Salim Mbacke tàmbale Cheikh Mamadou Sow Fall waajuram ba yegg si sëñ Abdou Sakor ñun ñëpp boo leen làq seen ngërëm loolu nag lu rëy rëy la muy garaat boo xam ne yaakaar du neex du neex a takkalaat keneen kooku nag bu ñu la di ko tudd loo góorgóorlu doyut moo tax ñu ñu bokk foofee nga foofu lañ bokk nag ñu fas yéene fët la suñu laxasaay nag fas yéene loolu nga xam moo doon ak bëggam doon tànkam mu doon ca doxee di ko waxee di ko jëfee ba am ci garaat boobu ñu ñi nga xam ay sëram la di ko tudd di ko tudd nag ñu fas yéene boole suñu bopp ne def benn say nag fas yéene feeñalaat njàmbaaram googee fas yéene feeñalaat suñu yéene ci moom rek xam ne kat wax dëgg yàlla ku toll noonu daal ku ko am ci yoonu lislaam bii ñu di tudd di ko tudd kooku war ngaa jéem nag feeñ ban ñëpp xam ne feeñ nga loolu moo waral ko ñu fas yéene boo la defee ne say nag fas yéene ñu nit xencu ay jéegum yooyu rek fas yéene takk defee ne say fas yéene ko feeñal baax a baax nag loolu ne ni ko mu Moudou Xabaan waxee rek daayira moom dañ koo tegoon ci ay moom ko waxee ne sëñ Cheikh Fall mais moom sëñ ñu tuddee ko sëñ Cheikh Fall Khady Gueye moom sëñ Fall moom la jiital ci bopp bi ak ñi ak ñi topp ci ginnaawam rek ñoom nag wax dëgg yàlla ni mu ko waxee rek liggéey bi taxaw nañ ko taxaw woo xam ne lépp rafet na ah ñëw ku ne da nga xam ne kat wax dëgg yàlla lii moom ah xanaa yéex gay tàmbali wax waaye kenn duñu wut am ah kon nag ñu ngi leen di jaajëfal di ko gën a soññaat rek di ko xam ne kat moom doy nañu ci fànn gépp nag kàddu yi ñuy wax xanaa dañuy danoo jox kàddu ñuy wax rek waaye moom mi nga xam ne mooy jiital daayira bi lépp lu daayira bi doxee rek ak lépp nu koy jëfee rek lépp lépp lépp lépp ci loxoom la nekk kon nag xanaa dañ ci feeñal suñu kàddu rek waaye nag kàddu yi nag ginnaaw ba mën la doy la ba lépp lu mu ci wax ak lu mu ci def rek ak ni daayira bi dox ak ñu ngi koy jaajëfal baax rek di gën a soññee bu baax a baax rek nga xam ne lii kat kenn sosalu ko ñoo ko sosal suñu bopp kon nañ ci jéem a fas yéene takkuwaat baax a baax rek te xam ne kat kenn ku ne xam ne njëlbeen nga sewaat na lool waaye fii ñuy toll nag kenn ku ne xam ne mbir maa ngi bëgg a jéggi dayoo waaye nag day ñaan suñu borom nag musal nu caat yi musal na ci ndoge musal na ci xeeti gàllankoor yëpp rek ba lii nga xam ne yéene ko sun maam ja sun boobam defal nañ daal ñu ngi sant baax di gërëm rek ñaan sunu borom bi subhaanahu wa taala dool noo dimbali a baax baax ba yéen yëpp mën a yegg daraja Sëriñ Tuubaa ak Cheikh Ibra kon sori ndax jëwriñ moom ñu ngi ñu ngi ni toog li doon wax ak def lépp nag ñoo ñoo ginnaaw mbooloo mi toog nan ñoom ñooy war a leeral loolu lépp leeral lépp nag waaye faaw ñu feeñal suñu kàddu ñoom ñi nga xam ne nag ñu ñooy seen kilifa te joxoon leen digal ñu ñu di saytu loolu bu ñu demee ba yegg si fii nag faaw ñu jaajëfal leen sant leen gërëm leen feeñal suñu yéene rek soññaat leen nag loolu rek moo waral kàddu yi waaye ñoom seen i kàddu suñu seen i kàddu doy nañu sëkk sëkk sëkk ndax li na jiital kat mat nañ ko sëkk ñu ñu ko bëggee ni koy doxalee kon nag mënu lu may leen gën leen sant gën leen a gërëm rek leen a mi nga xam ne lépp a ngi ci loo xam ne leen jàppale ba yéen yëpp yegg ndax njiit daa métti lool ndax xel yi ñoo tolluwut waaye nag am loo xam ne boo ko bëggee nag faaw da ngay taxal loo gumba rek waaye faaw faaw nga gis rek waaye nag doy doomu aadamam moo mel noonu rek waaye xam na ni xel nu du suñu yéene du suñ bëgg waaw waaye gis-gis ñu moom faaw day day waroo rek waaye lépp buñ toogee waxtaan rek buñ buñ toogee waxtaan rek faaw ñu gindikuwaat waaw kon nag ñoom ñi xam daal ñoo yor jiital daayira bi kon ñoom kàddu yi ñu ngi noonu rek sant na nañ baax gërëm nañ baax ñu ngi jégalu baax nag la ilaha illallah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 nee na dañoo bëggoon li nekk ci sunuy xol du ak coxor iñaanewuñ ko kenn it waaye dañoo bëggoon nii nga xam ni noonu lañ mel su mëntu ñàkk daal na yi ñu baax ñépp mel ndaw yu baax yi nan mel ni ñun waaye bëgguñu nag lenn ndaw lu leen gën wala bëgguñu yenn ndaw yu leen gën waaw dégg ko noonu sëñ Mamour noonu da doon nekk ak waxukaay yoo xam ne nag loo nëbb nëbb bañ loola feeñ faaw ñu feeñal ko ñoom te day am loo xam ne nag ka koy wut te bëgg am koom dong wala ka koy def ca bëgg a raw ñépp la ca tane daal mooy bët bañ caa tege nopp it bañ koo dégg ndax soo bëggee raw ñépp te waxtu wu nekk nga ne fa ñoom loo def ñu def ko loo wax ñu wax ko loolu du mën a am moom ku bëgg a raw nit ñi da ngay nekk fu nit ñi nekkul tey defit lu nit ñi deful li feek loo def nit ñi def ko foo nekk nit ña ne fa loo wax ñu wax ko ah wax dëgg yàlla boobaa nag loo am rek ñoom ñu am ko nag. te dañoo bëgg nag. raw amin nde soxorewuñ kenn de waaw soxorewuñ kenn jërëjëf Fall Ndiaga waaw. Mm. Serigne Moustapha ngi nii ñu jaboor gépp nee na asalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu nee na ci turu suñu jëwriñ ji toog. di sëriñ Falilu Faal jëwriñi sëñ Moodu Aminta waaye moom léppam la yaatal léppam it la jotal kon nag ak njabootu sëñ Moodu Aminta Faal gépp nee mi ngi ñaan suñu borom yàggal seenu dund ci yàggal ak dundam moom nee na te wéral ko bu baax a baax nee na mu joxe kàddu yoo xam ni nee mi ko tàmbalee ci alhamdulilahi rabbil alamina nee na di sant suñu borom bu baax a baax lii mu ko baaxe te baaxee ñu ko ndax lum am ñu am ja te lu ko dalit dal ñu nee na kon lim am dafa nekk ci kanam te mbooloo bu nu àndee faw kenn jiitu faw ñu am njiitam wala dëgg du mën a nekk ci ñoom nee na moo waral ak jiitoom nee na waaye nangu na ko waaye ñun tamit nangu nan ko nee na sant gi boroom moo di nee na dafa gore rek asgor buñ ko defalee nee na na bàyyi xel ka ko defal ak it lam ko defal te moom suñ borom moo ko defal te nee na nim ñu ko waxe lu mu am am nan ca sëñ Mamour Ndaw sëñ sëriñ Abo Fall Fallilu nee na ñii fi teew yaay seen mag nee kon kàddu yi ñu wax ci turu sëriñ bi nee na nim ñu ko daan waxee rek bu ngeen déggee sëriñ bi di wax ni sëriñ Moustapha mooy samay bët di samaw làmmiñ di samay loxo di samay tànk nee na li ko dal moom mii moonu dal nee na lu mu doon nee na doolal na leen loolee nee na moom tamit lu mu doon loola ngeen doon neena na dafa ne ci sunu kanam rek waaye buñ ko gisatul woon kenn ci ñun mooy boole wax ak def ci sëriñ bi lii mu koy defal di ko ko waxal nee na kon na ñun ñépp la waxaaleel nee na moom mii di sëriñ Abo Fall Faliilu li tax mu tudd aw tëram nee na lii muy wax du aw lay nee na yiwul de day wax dëgg rekk nee na ñi ñëwul te di ay magam ak ñi ñëwul te di ay rakkam di magi ñii fi toog di seen rakk nee na ku ci nekk am nga ci loolu ñàkk gi ngeen teew nee na la nekk sëriñ bi lañ ci nekkal nee na buñ toogoon defuñu ko nee na moom mii ñu jox lépp mu ànd koo ñépp nee na kon mooy jug dem defi loola wala kenn ci ñoom ñii nee na kon ñëpp lan defaaleel ñëpp lan waxaaleel kon sëriñ baa ñuy xamal ni seen doom yii ñëw siyaar si di sëti sëñ Modou Aminta Fall yi yéen de yéene seeni waajur yéen rek lan ñeewante yéen dong leen ñëwal siyaare bi yéen a ko moom ndax yéen a ànd ak ki ci seen kanam di sëriñ Fàllilu nee na bokk na ci li tax sëriñ bi di sant boroomam moom Cheikh Mouhamadou Fàllilu mii nee na mënee sula lim yépp nee na luñ ci lim lu mu bari bari rekk des na nee na waaye la ci njëkk nag mooy melokaan wii leen seen borom mel ñoom doomam yii nga xam ni lu leen suñu borom beral rekk la turu yàlla wii ngeen indi fi sëriñ bi loolu day wone ni le sëriñ bi ba bëggoon ci ñoom mel ni ku leen mën a muñ tën gënal ko ku dul ñoom la taxoon mu doon def loolee sunu borom far na ko ca nee na bëgg ak jubal la bëgg jubal leen rek kenn ku ci ne ba nga xàmmeegul sam di joor la la fab yóbbu fa yaakaaram nekk ndax bëgg ci yow ak defaru gu mat sëkk ndax nit ku baax moom bu defaroo defaru na te na defare lool dong la bëggoon ci ñoom sunu borom far ko ci nag nee na ndax bi ngeen indee turu yàlla wi wax ko ca kaw nee na mu sori lool ci xolam tur yàlla day neex nee na ni ni lor di def ay cër ba tàggale boroom ak sagoom noonu it la bànneex di def ay cër ba tàggale boroom ak sagoom nee na li nga doon wax li muy neex neex nee na lu sori ci xolub sëriñ bi la waaye moom ñim ko bokkal ñépp na kon ak déglu ak déglu ndax ni jamono ji mel ñu xam ni foofi dem rekk nit ñu baax ñépp seen xol yaa nga mel ni lu fasu rek ndaxu mettit ak i naqar ak nga xam ni ma ngi biir ndaw ñi rek ñee di ko jëfe ñee di ko waxe nee na nga xam ni dajaloo gi ngeen dajaloo kenn ku nekk di xool sa moroom waaye di xool ci moom aw yiw rekk nee na loo gis ci moom te jortu ni waru a nekk bu dee lu muy wax la bu dee lu muy def la nga fas yéene loolee mu tàggoog moom walla nga jortu ni lu war la ci moom la nga jortu ni lu war la ci moom nga xool ko gisoo ko ca nga fas yéene rek loolee ne ca moom nee na loolu rek doy na ndaje mi ngéen daje nee na daje ngeen fan doon liggéeyale sunu boroom ne ak fan liggéey liggéeyale Sëriñ Tuubaa mii mooy fa ñuy liggéeyal Serigne Touba ñun ñii nun waa kër Cheikh Ibrahima Fall nee na loolu kon yéen xamante ngeen nee ca loolu da leen cee yóbbaale woon ba ngeen feeñagul nee na ñiy liggéey ndaka jekk nee di seeni kilifa nee na lu lu mas nekk yéen a ñoom yéen a ko ànd. ndax yéen a àndoon nooy loolu nag saa borom beral leen ci jataay bi mu beral leen jataay bii ngir ànd gi ngeen ànd muy ànd gi ngeen ànd fab seen lépp yeesalaat ko ci sëriñ bi yeesal jaayante gi xam ni dara du fi tax am dara lu dul lii fi nekk koo xam ni wut si nga ko fi rek nan koy wute mooy melokaan wii leen seen borom baaxe sëriñ bi moom gor la soo xam ni dafa yemul ci xool ab cëram rek te gisul it ab cëram rek dafa gis ab cëram gis cëri ñi nu sedd ni moom xool cëri ñi nu sedd ni moom it nee na moo tax mu sant boroomam ci lii ko suñu borom sédde moom ndax nit ku baax ku ne waajur bu baax wu ne bu leen gisee rek nee na ba sañoon am meññeet mu mel ni meññeetam mii rawatina fii jamono toll nee na li ëpp ci ndaw ñi meññetum ñu baax lan taatal leen wax ci waay waaye suñu borom nag. am ci ñu bedd nag ñu mel ni moom nga xam ni lan meññi daray àdduna safu leen luñ mën a amee ëllëg rek suñ borom baaxi sëriñ bi nag boole ci meññetam mi nee na xam na ni mu ko waxe rek nee la bëgg ci ñoom sunu borom wan ko ci lam ci ñoom sunu baram dimbali ko nëbbal ko ko saa borom dina beral ab jaam lu ne nga xam ne loolu luñ ko ber rekk la sëti sëñ Modou Aminta Fall yii nee na duñ ay doomam rekk ba tax muy seere ci ñoom kàddu yii dafa nekk rek. nee na dafa nekk ci ñoom rek. nee moo tax mu di ko waxee noonu yi. nee na bu ci dara méjjoon. kon itam day wax jëm feneen. waaye melokaan wii leen suñu borom baaxee. nee na tey moom la sëriñ bi sant suñ boroom nee du lu muy damoo de. nee na sëñ bi damuwul de. li ko suñu boroom defal loolu lay sant suñu boroom ndax ndaw yu mel nii nit ku baax ku nekk ku bëgg nee na sobe moom balaa tudd sobe nee day génn jëkk nee na jaam bi lu mu jàpp-jàpp bu sangoo farata lu laab ga tar tar tar nee na bu toogee ma nga fees dell ak sobe ca biiram waaye balaa tur waa am muy tudd sobe day génn jëkk loolu la sëriñ Moustapha di waxe kàddu yi muy wax ak nee na dara amul ci yéen ci sikk jubluwu ko ak weddi de nee day wone ni lëbët mën a tege kenn man koo seere rafetal ngeen lépp sunu borom baaxe ne ko ba lu mu war a gis ci yéen te muy lu rafet mu won ko loola la ci des moom danga am na sunu borom dimbali ko nëbb ko loola loolu moo di ak laab rek waaye sobe moom li feeg bët a ngi ciy la tudd waaye bu ci bët tegewul mu nekk ca biir génnul tuddul sobe kon nee na day mel ni yéen amu leen ak gàkk fii fi sëriñ bi ndax sëriñ bi gisu ko de nee na seere si nag du mën a ñàkk ñu seere leen ko ca kanam waaye def di aji seere ju ne la mu gis rekk lay mën a seere soo gisee sëriñ bi bëgg lu nu ayib rek lu nu ayible bëtub sëriñ bi bañ caa tege bëgg rafetal sunu lay rek ndax lu bëtam tegewul lu mu rëy rëy rëy mën na ko mii moom waaye bu ci bëtam tegee dootu ko mën a miim nee na nëbb nañ seen ayib kon sëñ bi xolam sedd guyu alhamdulilahi rabbil alamina nee na sant na yàlla boromam ci jabatam gi nee mi ngi ñaan sun borom loolu ngeen doon ñaanlu am nan ko danoo bëgg sun borom dolli leen ko loolu ngeen wax ni na leen sëriñ bi dimbali na leen seen sunu borom dimbali ci doole sëriñ bi nit ku baax ku mu doon bu leen nee jàkk xam ne sama borom dimbali na leen ndool leen rek la sëriñ bi ñaan ci yéen loolu mun a ñàkk ci ab jaam kon sëñ baa ngi leen di doole dénk lii mu nekk rek bu leen yaakaar bu leen wóolu bu leen doyloo lu dul yoon wi muy sëriñ bi di ak taalibe dee leen xoolante ci seen biir ci góor ñi ak ci jigéen ñi ndax nii leen suñu borom dimbalee nee na jëf rekk mënu koo maye de ku sunu borom baaxe rek moo ko mën a am kon nag nee na bu leen bàyyi dara nee li tàmbalee ci suñ kawari bopp ba ci sunu wewi tànk nan koy xool rek lu ci jàdd aw yoon nee dal ca kenn bu ko kenn mënti dindi na ko ñaar dindi bu ca ñaar tuutee nay ñett bu ñett tuutee na mbooloo yépp àndoona dindi loola lu nekk ci waay te mu wóor ñi bokkul ci ki ñuy seere lii mu bëgg di sëriñ bi nan fexe ba loolu deñ nee na deñ wi nag nu mu gën a tegginoo moo ca gën bu fekkee bu tegginoo deñ nan ko tegginal ginnaaw lu mënta ñàkk la lislaam dafa am ay cër moom day am loo xam ne ku ko def des laa war a yedd day am loo xam ni ku ko def des laa war a duma am loo xam ne ku ko def danoo war a dagg sab loxo soo ko defaatee ñu dagg ba ca des am loo xam ne ku ko def nag des laa war a rendi te yenn daani suñu borom du ca am nee na yéen nag seen lépp mooy sëriñ bi kon nee leen jàkk sëriñ bi di ko xool xool suñu bopp nan xoolante rek ñun bu nu nangu kenn ku wàcc yoon wi waaye bu nu nangu it kenn ku tàbbi suñ diggante kenn ku nekk ci ñun sa diggante ak sa moroom na rafet rek seen waajur tedd wax serigne Cheikh Fall khadige Gueye mi ngi ñaan sa borom dolli koy ngeureum ne dalina ma sa wo ñom ñaar ñi ak mom serigne Cheikh Fall khadige Gueye ak yalla seen borom ci Madina Fall serigne fallo ngi ni tok de ni len bu kenn xat seen yeen ñaar ku ñew ci fallu mustafaa nee na ne sëñ Fallou yónnee woo Moustapha rek mu ñëw mu ne ko diw mii toog nee na yaa def walla yaa wax ku ñëw ci Moustapha ni ko Fallou nee na na jàpp ci loxoom ba yegg fa Fallou ni ko diw nee na yaa wax baa yaa def nee na bu ñëpp xamee loolu ci yéen ñaar fa ngeen jëm dangeen fa egg alhamdulilah rabbil alamin nee na loola ba leen ko seen waajur di dénk yàlla dimbali leen fekk na leen ci yoon wax def leen doon dàggi rek kon nag yéen tam bari na fu sëriñ bi bëgg a egg ak ñun foo xam ni daf ñoo yéene lii ko dal ndax am na lool bu la dalee donte ab safaan la sax te yéene ko ko kan bëgg safaan ba dal ko doo ko nungu sax yow donte ab safaan la kon nag yi sëriñ bi wax yépp daf ñuy laaye biir rek bëgg li ne fi moom mu di ab cëram ñu cëroo ko rek ñu nit day am amin woo xam ni nag bala nga koo am ñun ka ko am soo ko bëggee dalay def di wax nam daan def ak lam daan wax te wute ko nam ko daan wute it ca wute ko it fam ko daan wute ca wute ko lam ko daan wute ndax yooyu yépp lu ci des mën naa xañ ak nit ajiwut kon kàddu yu sëriñ bi ci ñun mënoon naa doon aw rëdd rek di wenn rëdd te lépp nekk ci rëdd wa nee na nun ko jàppe rek sunu borom fekk ñu ca noona moom daal xolub sëriñ bi sedd na guyu ci ñun da koy seere rakkam yu tedd yii mu bokk sëñ Modou Aminta Fall nga xam ni ñoom rakkam yii yéen seeni doom ngeen ak maam yi fi nekk ak ni ma ko waxe woon nee na aji wut moom la koy dimbali ca la muy wut bokk na ci du lépp sax waaye da caa bokk mooy ak xàmmee mhm. sooy jóg di wut loo xamul sa bët mën naa tege ca loola ca du tax nga jot ca ndax xàmme woo la ngay wut waaye ko amoo xam kum doon boo déggee kàddu sëñ bi rek xam ne lépp tàbbi na bu nee sëti sëñ Modou Aminta Fall loolu aw waxin rek la mag ju baax jàng ca waa kër Serigne Cheikh Fall bàyyi góor ñi ngi ni toog ak mbooleem koy rekk Serigne Cheikh Fall Baye góor rek sëtub sëñ mu deminte Fall nga sëtub sëñ Cheikh Fall Baye góor nga it nee na diggante bi daraa fi nekkaatul moo tax Cheikh Moustapha waxe ko nii mu ko waxe yenn sët yi rek ko fi teew da di ab tool la nag mbooloo mu nekk ak fa nuy xëy dëgg la kër gii danoo xëy fii waye liñ doon ci kër gi lolu ngeen doon ci kër yépp yeen motax bi ngeen waxé lolu ngeen wax xelum señ bi gëna dal ci waxin wi ngeen ko waxé won nee fu lu mel ni am rek na ngeen xam ni ci sëti señ mu demee yeen mom lolu dem nañ jël ndax seen kër bay leen koy defee ak seen kër maam mu yéefa moom daal xolub sëñ bi sedd moom lañ doon wut sëñ Moustapha nag nee na xolub sëñ bi sedd na guyu nee sëñ bi sant na boroomam bu baax nee na ñépp ku fi baax rek bëgg na leen am nit ku baax ku ne bu sañoon am meññeet mu mel nii kon yàlla na bu leen dara dogale na ngeen àgg ba sës rëkk rek nee na li di bëggam lépp yàlla nekk ci yéen yéen itam li ngeen di doon doon ay ndaw seeni xol de fees na dell akuk bëgg jëm ci sëriñ bi rek yàlla na leen suñu borom man looloo lii eh, kàddu yi nag daa gàtt rek waaye li mu bëgg wax de moom bari na waaye li ko gàttal nag bokk na ci mbégteem sëriñ bi ci yéen rek ndax neneen nu mu amee woon nu dul nii ak bëggam du am suñu borom far na ko nag waaye suñ borom far na ko nag ba li mu bëggoon moom am na ko rek mooy ngeen mel nii ngeen mel rek nee na kon yàlla na ngeen ci sax dàkk ba lu ciy nuru lu ci wërtu am yan na suñu borom dindi lépp ba mel na ko sëriñ bi bëggee rek li sëñ bi bëgg ci ñun lépp yal na am ci barke sëñ Modou Aminta li ngeen bëgg ci sëriñ bi lépp yal am ci barke sëñ Modou Aminta nee na sëñ bi ñun murit yépp ñu ngi àndoon ñaan suñu borom yow mii di suñu jëriñ nga yàgg fi lool te amug wér ndax kun déggoon lan doon wut ci tool bi te doy noo sunu yaakaar ne ci moom loolu lépp suñ borom baaxee na la ko faal kon yàlla na nga fi yàgg lool te amu wér ci barkeb sëñ Modou Aminta barkeb Cheikh Modou Moustapha barkeb Serigne Touba ak Cheikh Ibrahima Fall jërë ngeen jëf. nee na li seex Moustapha doon wax rek lay findeel xolam sedd na bu baax a baax a baax de. ndax nee na kuy wut te mënoo ñàkk. ku la ku la dimbali ba nga am war nga koo sant bu baax a baax kon nee na mi ngi sant yàlla suñu borom julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sant nag sunu jàmbaar ju baax ja muy Cheikh Mamadou Falilou Fall ndax lii lépp moom rekk la de nee moo defar alalam ba mel na mu war a mel mu teg ko ci seeni loxo téyele leen ko nag nee na kon nag ñoom li leen ci war mooy téyel ko ak sàmmal ko rek waaye lépp defarug Seex Mudu Fallu Faala waaye ginnaaw ak defaram la tam baaxe leen ko ñun ñëpp nan maase ci téye ko rek kenn ku ci nekk ci ñun nanga fexe ba foo wéete buñ la fa fekkee nan japp ni seigne Modou Aminta tafa la fa ne. budé dom la budé dee ab sët la. budé ab talibé yit yar bi ak teggin ak melokaan wi. neena buñ ci doyel mukk. ndax lolou seigne bi denk na len ko ba ndax lo meuna am lu bari bari. bu nikul ab yar nekul ak i teggin. ñu mom duñ ko meuna gis. kon ab yar ak i teggin moom. lu mëntu ñàkk la. lu mëntu ñàkk la. am na ci ñoom ku leen nee na am na ci ñoom ku leen doon jàngal koo xam ni. danañ ko wax sëñ ko wax sëñ Maxtaar Marème si. nee na ay teggin. nee na ak sawara. ak àjjana. yàlla def li na soppi ñetti jëmm. ñu ànd ci aw yoon déglu leen. nee ñuy dem ba mu yàgg. xanaa aw mar dab leen. xanaa aw mar dab leen. te xamuñu fu ñuy naane. te xamuñu fu ñuy naane. yàlla sama borom baaxee leen ñu dem ba yem ci teen. yàlla sama borom baaxee leen ñu dox ba yem ci teen. nee na fekk fa sàmm buy wëgg ay nagam. te mar lool. te mar lool. teggin moomee ak àjjana. nee na teggin moomee di àjjana. te teggin ak àjjana. teggin ak àjjana. ni sa ni ni sa yow mi nga xam ni. yow mi nga xam ni. kuy jaamu yàlla ku ne. kuy jaamu yàlla ku ne. ragal la ragal laa tax. ragal la yow sawara moo tax. demal ca waajee ndax mu ragal la. demal ca waajee ndax mu ragal la. may ndox may ñu ndox ñu naan. nee mu dem taxaw. nee na mu dem taxaw. suur ko yu métti. suuf ko tàngaay wu metti suur ko suur tàngaay yu métti. suur ko tàngaay wu métti. waaye di wëgg rek. waaye di wëgg rek. wuyuwul sawara. mu taxaw mu yàgg mu dëppaat. mu taxaw ba mu yàgg mu dëppaat. ah ni ah yéen kat damaa defe nii. kee. ragal ma taxul kuy jaamu yàlla. ragal ma taxul ko muy jaamu yàlla. àjjana yow mi nga xam ni. àjjana yow mi nga xam ni. kuy jaamu yàlla ku ne. kuy jaamu yàlla ku ne. bëgg laa tax muy jaamu yàlla. bëgg la yow na ma tax muy jaamu yàlla. demal ca jaam bee mu bëgg la ndax mu may ñu ndox. àjjana dem fa akub seddaayam. suur ko sedd ba rek. suur ko sedd ba rek. taxaw rek. taxaw rek. sedd guyu rek. sedd guyu. taxaw taxaw. taxaw wuyuwu ko. mu dëppaat delsi mu dëppaat moom àjjana delsi. ne ah yéen sama gars yi damaa defe ni. keekat li muy jaamu. bëgg ma taxul. bëgg ma man àjjana taxul mu mu mu jaamu. ni ko teggin kon damaa yaakaar ni yaa yow yaa war a dem. yow mi nga xam ni. la ñàkk ëllëg. ku la ñàkk ëllëg. la jëm. sawara la jëm. la am ku la am ëllëg. ci man la man la jëm si man àjjana. demal ndax mu may ndox. demal ndax mu may ñu ndox. Ah, teggin dal dem. teggin daal di dem. ni ko asalaamaaleykum. ni ko asalaamaaleykum. daal di goj ba. daal di téye goj ba. di wëgg rek. di wëgg rek. di wëgg rek. ba mu yàgg borom goj ba ni ko. ba mu yàgg borom goj ba ni ko. xanaa da ngaa bëgg a naan. xanaa teggin da ngaa bëgg a naan. mu ne ko waaw. mu ne ko naanal ca ma yàlla ñi nga àndal ñu naan cay teggin. kon teggin am na solo lool. nee nit lu mu baax baax baax ca amul teggin. teggin yi du feeñ. kon yar bi ak teggin yi. buñ ci doyal mukk. alali kër gi. alali kër gi la. alali kër Cheikh Fall gépp la nag. kër seex Ibrahima Fall gépp la de. waaye alali kër gi da cee raw. waaye Cheikh Modou Falilou Fall la da cee da cee raw. ndax moom. yàlla baaxee na ko yoonu maama wi. yàlla baaxee na sëñ Modou Aminta ci yoona maama wi. kenn ku ne def nga fi lu wax ba tey. kenn ku ne def nga fi lu ba tey. waaye lu dul lu dul ak taalibe. soo ko amee. saay-saay dina ko am ni yow. saay ko am ni yow. baa ma ëppale la ko. waaye alal ji na am. du alal saay-saay. alal kuñ dimbali la. alal kuñ dimbali la. nan ko téye bu baax. kon nag sëñ bi nee na jërë ngeen jëf. nee na kàddu yi sëñ bi waxoon na ko ba ndég ko. ndax Cheikh Moustapha jottali na ko ba mu leer naññ. nee dañu doon sant di nu gërëm. di ñaan sa borom guddal seeni fan. te dafa leen wéral yaram yu baax a baax. te dafa leen kartan koo xam ni. li sëriñ bi bëgg lépp. ñun si sëriñ sëñ Modou Fall dinañ ko man jëfal ko ko rek. ndax jàngoroy murid yëpp. ndax nee na jàngoroy murid yi. ñun ñëpp ñoo ko ñun ñii ñëpp ñoo ko bokk. suñu jàngoro ñun murid mooy. suñu jàngoro ñun murid moo di. mooy li sëriñ bëgg te mënuñu ko rek. mooy li bi bëgg te mënuñu ko. loolu rek moo nu metti. loolu rek moo nu metti ñun murid yi. waaye li sëriñ bëgg bu ñu ko mënee. waaye li sëriñ bi bëgg bu ñu ko mënee. dara du nu metti. dara xol day sedd guyu. kon li sëriñ bi bëgg yal nañ ko man kon na jërë ngeen jëf. nee na mi ngi ñaan suñu borom jataay bii. nan fi bokk teew déwén. te kenn bañ a manqué ci ñun. jërë ngeen jëf jërëjëf Fall waaw na nga ni rek bu kenn manqué waye nan yok ba yëg nak nawet baangi deugmal la ilaha allah fa la ilaha illa allah la ilaha allah fa la ilaha illa allah la ilaha illa fa la ilaha illa allah